Euh, animé ba mu ñëw fii donte dama doon toog euh, ñu may woo dama toog benn jour ñu woo ma euh, bi moo ñëwee ñu ne ma ah Maguette dañ la bëgg yóbbu benn village boo xamante ne Kayen la tudd dañ fa am benn nakar boo xamante ne fa ko ñu dem taxawal leen nakar boobu noonu ma ne leen ah franchement parler man fu mu toll nii man sama yaay dafa feebar mais est dinaa mun a dem mais bàyyi ma xoolaat bi ma demee ma xayma waat yóbbu ko hôpital ñu xoolaat yaram bi ma ne man dinaa jóg forcé ma dem ma dimbale leen moo waraloon sama tànk fii nii te bëgg naa balaa ma fee jóge tamit ma gën leen mën a jàppale ba lii mën a jeex te bëgg naa ko ñaan naa ko yàlla tamit. fii bu ñu fiy ñëw dimanche lañ fi ñëw dimanche bii passé. fii fii nii ñu ngi fi bëgg nañ daal man moom du ma la nee temps de jour lañ fiy am mais bëgg naa fee nekk daal ba ba bu fi yàlla dogalee rek. parce que xam nga man kese góor man maay sama kër man maa yor sama kër sama yaay sama papa ak lépp daal xam nga léegi nag man fële que man ma ñëw dimbale leen te mënu ma tamit ne di leen ne euh, jour bii nii laa fiy jóge ma nekk fi lu ëpp loolu noonu wala ma ne leen jour bi laa fi bëgg a kii ma manqué ko xam nga nit moom buy wax na wax loo xamante ne loolu dina ko wax ëllëg. dañ ma joxoon benn sànce boo xamante ne dama ko waroon dóor. léegi euh, ñoom bu ñu ma woowee téléphone parce que ñoom yàgg na bi ñu ma ko waxee yàgg na tuuti xaw na yàgg léegi nag euh, bi ñu ma ñëwee wax chantier bi ma ne leen man lii nii fële que ma bàyyi ko parce que gars yi jot nañ ma wax lii lu yàgg information bi ñëwoon na ci man lu yàgg kon nag man comme newoon naa leen dinaa dem man góor dama bëgg nekk nekk loo kii loo xamante ne loolu day nekk ci man dëgg su ma waxee rek naa jëf comme newoon naa leen dinaa dem même bu may dee dinaa dem. moo waral tànk moo waral ma bàyyi chantier boobu noonu ñëw ci chantier bii nii. non man jànguma école. man def naa tailleur ba qualifié tailleur ba ñu ñaanal ma. ba ma am samay machine ma ko. tailleur maa ngi koy def ay ay 2007 euh, yooyu noonu. maa koy dugg ay 2007. waaw 2007 laa ko dugg ba ay 2011. gars yi xam nga sama papa ñëw mu ne comme gars yi ñu bëgg ñaanal naa dem ñu ñaanal ma ma ne déedéet naa dem ba 2014. ci laa dem ba 2014. ñu soog ma ñaanal ñu dem sama nijaay dimbale ma am ay machine mais dama ko mujjee teg fële léegi man maçon bi comme man sama papa bii la jàng bii la mën ma ñëw ma ne damay bàyyi boobu noonu ñëw ci maçonnerie bi euh, ñoom dañ ñu nee affaire bi amul fay te ni ñu ko waxee tamit boo xoolee amul fay nee nañ ñu nañ leen ñëw jàpp nañ leen ñëw jàppale comme nag jóg nañ pour jàppale ba ñu ñëwee suñu première réunion dañ ñu ne ah Maguette Sow fii de dañuy woo pour ñu ñëw jàppale waa dëkk bi ah, boo leen paree nag du leen nee loolu fay la mais dañ leen jox trente mille bi ngeen di dugal seen poste pour ni ngeen mënee yeggee seen kër ma ne ko ah man de amul problème comme xas naa ba dëkk fi sama tànk danaa ko liggéey ba mu jeex incha allahu. boobu ak léegi ah, kër maire bi daal man assuré naa ko ba finition bi kër maire bi dóor naa ko ba finition am na nag benn euh, kër tam bu nekk fii nii boo xamante ne man maa teg birig ba ci kaw ba ma ragé ko kër Seex kamara tamit boo xamante ne man maa ko tabax ba gars yi zeng ko ci moom laa jimaan ni dem dem raax